waaw comme ni ngeen ko gisee nii rek comme comme comme ni ngeen ko gisee nii rek gis ngeen ma bi may ñëw nii dama dama xuus maa ngi war a xëy ba gis nga damay préféré léegi laay génn pour mën a liggéey parce que mënu ma jóg 4 heures du matin di xuus ci a ko gisandoo yéen ñëpp gis ngeen ko li daal la ñuy jànkonteel buñu sañoon SN HLM moo ñu yóbbee li yëpp suñu sañoon aussi xam nga ngeen jàllale ko ñoom ñu yëg ko donte ñoom yëg nañ ko sëgg ko mais lii dañ ko war a gis quoi jàppale ñu parce que lii nii chaque année lii la ñu dund waaw jafe na métti na depuis jamono yi yëpp ci lii lañ nekk tout le temps amul guddi amul bëccëg ñu ngi ci ndox mi temps yi passé suñu waa quartier bi mobilisé wu nañu ñu ne chaîne HLM daf leen convoqué ñu dem fa bi ñu ñibbisee aussi dañoo wax ce qui se passe ñoom nee nañ ñu carrément mënuñu ñu asseniral ñoom nee nañu ñoo ñu yoreel HLM nee nañ ñoom ñoo yoreel les parcelle waaw mais jafe-jafe bi bon donc buñ koy xayma jafe-jafe bi yàgg na donc c'est n'est pas parce que aujourd'hui de a que ñu bëgg ko beaucoup ci benn fan ou bien ci pluie affaire durant toute l'année de nous pomper man fi ma donc il y a deux motopompes là-bas qui ont constamment constamment nous pomper ça fait trois ans de cela trois ans de cela Nous ñu ko nous ñu ñoo jëndal suñu à 675 000 francs ñu jënd ko trois ans durant pompe bi taxawul. ah dëgg yàlla sonn nañ démb ba nelawuñu suñu dara dara dara dara dara suñu sax ma de a mais pas ci ay pourquoi SNHLM parce que SNHLM c'est une société nationale donc nous dañu yaakaaroon nous en tant que travailleur nous liggéey pendant fanweeri at wala fanweeri at ak économiser économiser nos alal Nous, yaakaaroon SNHLM société nationale donc état en quelque sorte Nous avons peut-être que si nous avons une garantie un cadre de vie qui est vraiment macha mais loolu moo taxoon ñu dugg ci SNHLM. le président de la république Macky Sall man moom la am pour échanger ak moom tuuti te Macky Sall lii may wax nii bul ma dégloo ak xol nga déglu ñu ak xel tey Macky Sall tey buñ ne tey yaa ngi ci palais bii yàlla ak Kër Massar on a toujours lutté pour le président de la République du Sénégal. SNHLM escroc la ñu man maa ko wax ay escroc la bon lii nii présentement nii situation bi nii donc li ko empiré nii ci ci eau de pluie yii la mais situation inondation. C'est depuis 2012. Depuis 2012, nous vivons. vivre. Chaque année, c'est le même scénario. Nous devons apporter nous, dara, dara, dara. Si on continue, nous Nous devons le maire en personne. Nous la commune la population bi wax leur doléance ñu wax suñu doléance mu nous leur état mais nous sax ñun duñ ko am duñ ko gis donc nag nous faire. nee nañ la randul Nous da nga def naka sudul faire. te bàyyi wuñu te bàyyi wuñu bàyyi wuñu man mii jigéen bés bu yàlla sàkk ñëpp fii heure bi ñëpp ma ràññee fii ñëpp ñëpp saa yu ma yeewoo xeex bi man maay ki koy porté ñun non li may wax mooy gars yi nañ génn ñun xam nañ yoon bi gars yi nañ ñëw taxaw ñu fexe lii dëñ sinon ñun xam nañ ni ñu war a def ñu xam ne ñun sunu Sénégal duñ dañu yaakaaroon ne am nañu ay njiit yoo xam ne mot nañu seen taxawaay mot na mais en réalité gis nañ ne vraiment taxawaay bi sooxe na